asalaamu aleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. am nañu mbégte ak contentement tey ci àllarba bi bi nga xam ne moom mooy bés bi nga xam ne moom mooy àllarba bi njëkk ci beneen àllarba bi muy ñaari ba <laughs> ñu ci am mbégte contentement bu mag di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci bés bi nga xam ne moom mooy àllarba le neuf. juillet 2014 ñu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaanu koor ci yor waxtaanu koor ci yor-yoru koor ñu feggoog ci réalisateur bi nga xam ne moom mooy tonton mag bi jël kaddu gi ak jëmm yi daal di koy ñoddi sànni ko ci jaww ji jaww ji daal di koy wàcc ci antenne yi antenne daal di koy tasaare ci kër yi ngeen toog di ko seetaan ba mën koo bànneexoo kon waxtaanu koor ci yor-yoru koor. ma feggoo ceeg ay caméraman yoo xam ne ku ci mel ne Matar Dia feggoo caméra centrale ak Malick Ka feggoo caméra bi ci wet gi ñu ànd ceeg Aziz Soumaré ca son ba ñu ngi nuyu tamit waa décor ñu ci mel ne ñoom yox ak ñoom njool Adama ñoom Ousmane Lamine Bayo ak ñoom Pape euh, ñoom Gomis fàttewuñu tamit ca saane mi nga xam ne mooy toppatoog li jënti li nga xam ne moom la oustaz bi soxla ca kaw table ba di ñu ngi nag bu baax ki nga xam ne moom mooy suñu papa di Assane Ndong yor sécurité bi ñu ci nuyu tamit Kara yor sécurité ñoom promotion fàttewuñu kenn koo xam ne yaa ngi fi toog tey di leen gërëm seen teewaay ndax mbir bi am na cuq am na mooc lépp ànd ci xur mooc macha allah ñu am mbégte ak contentement bu mag di leen ziare yéen ñëpp nag di leen xamal ne waxtaan bi tàmm na waaye ñu ànd ci sponsor yi nga xam ne moom laa tuddee euh, le coin des sponsors tomate jeeg bu jagar ngi nii ma tar jëlal ma ko gis nga. moom moo ànd ak ñun di xonkal seeni ceeb muy neex laxdaa bi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy meewu nag bu daara jolof ak lingeer barkeji ak war fonde dëkk yooyu yëpp moom la ñuy gël ndax nag yooyu moom la ñu roccee li nga xam ne mooy meewu laxdaa macha allah macha allah la vache qui gis ngeen ko moom mooy fromage bi nga xam ne man de dama juddu fekk ko fi di ko lekk macha allah muy noddante sama yax di noddante xale yi nga xam ne ñoom ñoo juddu fekk ko fi kon moo am solo dool li ma gis ngeen ko moo nekk noonu soow la boo xam ne ah soow bu neex la ci réew mi nañ ko rattee fi nañ ko defaree nagu réew mi la macha allah dara dàq ko am na mbuus am na pot waaye am na caakiri bi nga xam ne man su ma ko jàppee rek damay namp te su ma nampee rek du ma gaawa a fer <laughs> ma feggoog cëg ñaar ñu mag nag di kii nga xam ne moom mooy góofaal ak ki nga xam ne mooy suma doomu ndey ah Abdou Fall Abdou Fall Gueye moom mi nga xam ne moo yor ci ëppukaay ba di ventiler yi ak split bi waaye gan gi nga xam ne moo jóge ba Afghanistan di laxloox macha allah laxloox kon mbokk yi dañu nekkoon ci jaar-jaaru Abu bilaal waaye nettali sa gént balaa muy neex nga daal dee xam la gént ba wax dañ leen di bàyyeeg laxloox mu wax leen man ba ma ñëwee ca dëkk ba nga xam ne moom la alxatamis daal dee sancoon doom jëda Aycha Lula suñu nooni di batar batar albundux alpuutar ñoom barbuut ñoom batar buut ñoom ñoo nekkoon ñëwoon ne kenn du fi jaamu diine bi nga xam ne moom la Abu Bilal bëgg jaamu kon nag dañ leen bàyyi ak lax mu daal leen koy wax ci arab ma firi leen ko ci olof yéen taalibe yi ngeen dégg xam ne kii ngeen jàkkaarloo du nitu leen dafa rax. macha ay ca ay ca ay وزلك الأولى أن ترك لنا يوني أبو بلال فجعت لنا الثاني وزلك المنى نشهد عن فلان أعضلنا آه أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة. أنا أعرف أبي بلال نحن نازع بلال بيت أشه الله وتيرده أبوه أشعيل الله تقلم إني nee na bi ma xamee ne ñëw naa ci dëkk ba ñëpp daan waa nit ku ñuul kii jógee ci bët gànnaaru Afrique lan lay def ci si biir nit ñu weex ñi ma ismu haza ana ana taqullu abu abu aishahullah haza ismu haza ismu abu bilal nee na alxatame ci boppam moo taxaw ne kii de jëmm ji ku ma neex la ndax ni mu ñëwee ci dëkk bi ak ful ak fayda xam-xam ko tax a ñëw te dinaa ko jàngal wala walakinna huna kasiran bintun huna kasiran nasu huna ana kuntu abu aishahullah abu abu abu bilal jiitu min al afrikiya walakina abu bilal dinnatu abi bilal wa dinnatu kulla jaddu bilal binna alhamdulilah dafay wax ne moom nee na man rek maa nekkoon nit ku ñuul à part moom moom maa nekkoon nit ku ñuul ku jigoon Afrique moom nag jugewul Afrique moom mu ngi jóge dëkk boo xam ne ma nga ca ginnaaw Afghanistan waaye métissage bi am ci digganteel ak takk-takk lakk-lakk moo tax yaramam daa dee ñuul waaye du nit ku ñuul moom moom du ni ngeen koy gis nii di nit ku ñuul nee na nag ca Afrique man rek maa nekkoon nit ku ñuul ku représenté Afrique ci dëkk boobu nga xam ne moom mooy ca xurga ca bët gànnaar Israël ca ba nga xam ne mooy dem ca Afghanistan booru Turquie ca Damas fi Libi nekk ca Syrie nekk ci diggante bi Palestine nekk ca ndeyjoor xurga ngay wàcc dox ci debb daa day jàll yoon bi nga xam ne moom mooy Barkara jëm ca Karbala Iran nekk ca ndeyjoor Irak nekk ca wet ga daa lay fi nga xam ne moom mooy Libi mu dem ci dëkk bu ñu naan Farsahuna al سلك الولا من ترك الألك ولكن أبوه كنت إني هذا فيك يا ناس أنا لا تقف أشه الله من أبو بلال nee na coono yi nga xam ne man daj naa ko foofu boo leen ko xamoon tey su may wax da ngeen di jël seen seen nopp di ko firi nee na man dund naa lu dul métti ci foofu métti bu nekk teg nañ ma ko nee na maa fi xaqil maa fi maaha maa fi cheikhuna Abou Bilal Idriss nee na sobaay la masa nee na dama doon toog du ma añ du reer du ma ndekki loolu yëpp ci tumuranke bi la parce que alxatami danaan la balaa ngay mën a xam-xam faw nga tumuranke faw nga sonn faw nga jaamu faw nga tarbiyu faw nga nekk koo xam ne da ngay la galère est plus sûre pour atteindre l'objectif de quelqu'un abuj bilaa bili bayt ishirin yawma ishirin yawma maa fi furuj maa fi akil li ma la yaa Habibie ngeen baal ma ngeen baal ma bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi macha allah alakal alakal bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi bàyyi leen jooy yi li mu wax dafa daw yaram. nee na dañu ma takk ci benn garab yeew sama loxo ci ginnaaw nee na bàyyi ay yamba yamba yi di yéeg sama kaw ñu may matt alxatami ne ma il nga am métit pour mën a xam lan mooy lu baax nit ki il faut mu xam lu naqari soog a xam lu neex pour mën a xam lu neex ban mooy njëriñam waaye munoo ñëw léegi rek am na nag ñaari yoon ndax alxatami dafa am lu <laughs> <laughs> macha allah kay macha leen ma tuuti. su ko defee ngeen ànd ak dal tonton mag ñu ibbi téléphone yi tonton mag ñu ibbi téléphone yi jooy yi doy na am naa ku ne ci ligne bi bàyyi leen jooy yi sama jaar jaar dafa métti waaye bàyyi leen jooy am na ku ne ci ligne bi allo. allo. allo waaw koo kan la. kooku la Abdou Bilal. bàyyi leen jooyi ngir yàlla bàyyi leen jooyi waaw koo kan la. alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. i Abdou Bilal lii ku ma ko waxoon dina ko gëm. lu tax doo ko gëm. Abdou Bilal bëgg na la bëgg chaque jour Abdou Bilal damay bëgg a dugg si ligne bi. ndeysaan macha allah Abdou Bilal su ma la gisee télé. wax nga dëgg macha allah. te euh, may kontaan ba kontaan ba bëgg a dee dama xam lu may def. macha allah macha allah macha allah. alhamdulilah soo waxee ba ak sa bët yi. macha allah macha allah ak kari kari. ak bu sell bu rafet bi alhamdulilah. macha allah. dama xam lu may def alhamdulilah bëgg naa la. macha allah dama sant ba loolu rek laa si la. macha allah macha allah. alhamdulilah. waaw. su ma dëkk bu gis alhamdulilah man maa ngi dëkk ba kaw la. macha allah macha allah. bu ma gisee allah macha allah. maa allah macha allah yokk allah. sama taar mënatoo ko xam léegi Aboubilal. moo mën a bind rek ni nga mel bul ko bàkkoo yàlla la bindee noonu mun na xëy rek wàcc ko. kon bul ko bàkkoo rafet naa la wax. Hmm? xoolal xale yu góor ma nag sama taar. nga ne. man damaa rafet ba xale yu góor yi kaw la kenn ñemewu ma ndax sama taar. macha allah yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla yokk. loo bëggoon nag loo bëggoon. dama laa bëgg man daal bëgg ma dama daal dama laa bëgg bëgg bëgg ba xam nga lan laa bëgg. waaw. élève laa damay jàng aw ma xaalis aw ma dara. Hmm? waaye sama xol bi laa bëgg a jël Abdoulaye jox la ko adiya. yaa ngi jéggi. macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah dafay am li mu wax ni xam naa liñ bee dagg est que xam nga ni nitu diine dëgg boo xam ne dafay sellal di jàpp am leer te du foo du def sobe fenn bu taxawee jigéen yëpp dañ koy bëgg ndax li jigéen di wër ci góor bu ko gisee ci nitu diine fow mu ñëw du ko tey da koy daanal leer da koy bouleversé moo taxit sànq bi lax luux di expliqué sama métier di muy jooy ba tey am na loo xam ne du ma nangu sax mu wax leen ko du ma nangu mu wax leen ko ndax am na benn bés fi jaala alakal wajanaka la wula sa ala tarikal bayina walakin bi huna bil bil madinatu kuntu abu nee na shahula nee li ko gën a metti mooy ak li ko gën a jaaxaloon dañuy teg ñëpp di añ alxatiba ne bu mu añ ñëpp di reer alxatiba ne bu ma reer mar naan mu ne du naan nee na ma toog di jël sama rongoñ man di ko naan man moom nee na gis na ma rongoñ macha allah kuntum kuntum abi bilal wa kalam ana la tak ana yebul dinna du bilal Ah! macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah bàyyi yoonu jaar-jaar bi nañu ko bàyyi nañu bàyyi histoire bi sinon du egg boo xoolee kilifa diina yi nekk ci Afrique rawatina ci Sénégal ko ci netti li jaar-jaaram sa bët dina tooy ndax ñoom ñëpp ay jàmbaar nañu. yàlla balaa nga koy balaa mu lay jox maqaama da nga koy liggéeyal yàlla du la jox maqaama te liggéeyaloo ko te nit ki dafa am ñaari yoon am na yoon boo xam ne escalier la am na yoon boo xam ne ascenseur la yoonu escalier moo gën a wóor yoonu ascenseur ñëw léegi egg léegi waaye jaar léegi dox léegi mu yàgg lool nga egg waaye fa ngay toog kon nit ku nekk da ngay xam sa bopp dans la vie maa man ñëpp dafa fekk ngay xëccante ki mën waaye ki mënta xam boppam bu eggee ca kaw dina xam na moom la dama leen di wax lu leer laa la wax dama ne ñaari yoon la yoonu escalier ak yoonu ascenseur boo ñëwee ci benn immeuble ñu ne immeuble bi fukki étage ak ñaar la dangay jël ascenseur bi yéeg huit heures egg huit heures deux deux deux minutes bu dee na da ngay jël sa tànk da ngay yéeg huit heures egg fa midi kon kii yeeg huit heures egg midi xam na yoon ba nga xam ne fa la jaar coono ya bu eggee bu toogee nappalu ko lu ko fa fekk barkeem la ak borom moo ko moom kon na nit ñi dellu sa seen xel te xam ne fi yàlla fi nekk te yàlla bu la yónnee mission te bu la yónnee mission sa noon du la mën a dara ala kuli kuleen ku leen saf ku bëgg koo leen taamu kuy neexal seen xol kan mooy Abu Bilal alxatam alxatami alxatam eh alxatam waawaay alxatam alputar albandax eh. albundux eh. batar batar alxatam eh. batar buut barbuut eh alputar albandax al bandax al putar ni bundux bundux ni bandax bandax ee al xatam ee al bundux ee al bandax ni bandax bandax jërëjëf jërëjëf jërëjëf dalu leen seen place dalu leen seen place li soo gisee ñu def ko du caagaani ay caaxaan ndax dafa am foo xam ne boo fa jaaree mu metti ba pare boo eggee da nga war a bég ndax boo jooyee ba pare yàlla da lay bégal nañu moo tax ñuy bànneexu bu ñu jooyee ba ñëpp na jooy nañu dañuy bànneexu ba delluwaat suñu bopp gis nga alpotoir albandax albundux batar batar batar buut ñooñu boo leen di way dañuy dellu ginnaaw ay seytaane nañu am na ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum maaleykum salaam. yaa Oustaz. waaw mel ni maa ngi. bu baax. nangu nañu ziar bu wér. waaw di delloo yow. alhamdulilah a dénk sama bopp. jërëjëf jërëjëf. man la jaxate sa bi nekk Tëngéej. waaw ja ah, ah jaxate politicien. waaw waaw waaw. waaw def na def jaxate. waaw alhamdulilah. alhamdulilah. waaw Oustaz. waaw. dafa am benn lenn euh, daal lu ma xaw a jaaxal loolu ma bëggoon la ko laaj dañu am suñu waaj yoo xam ne suñu benn grand bu tudd Laay Maafe. Laay nan. Laay Maafe Maafe. dafa sant Maafe wala dafa bëgg Maafe. Laay la tudd sant Maafe. ñoom seen askan ñoo sant Maafe. waaw léegi nag mu doon laaj ndax moom am na koor wala amul koor wala ñun bu ñu waxee laay maafe ñun dañuy won loolu daal moo ma jaaxal. ah bu dee maafe doomu daal la wala maafe euh, su lu maafe ñaata maafe am. maafe yàpp la wala maafe doomu daal maafe jën la. maafe yàpp la moom maafe yàpp la. Euh, noo sant nga ne yow. ah sëñ bi noo sant. man jaxate. noo tudd. Mamadou. ah. Mamadou Mamadou. Mamadou Diakhaté xam nga ñaari yoon ngi nii ngay dugg ci émission bi. te ñaari yoon ngi nii ngay waruloo waa Tëngéej. waaw doo ñett nag gis nga yow. waa jooju bu sante maafe. yow lu sa yoon am na ñu sant yaasa. Uh-huh. am na ñu sant ginaar. waaw am na ñu sant ndox. am na ñu sant ndawal. am na mm-hmm. ñu sant euh, béy. waaw am na ñu sant béy. am na am na ñu sant waaw am na am na ñu sant gëlëm am na ñu sant am na sant sandwich am na ñu tudd hamburger dama ne tur ak sant deful euh, euh, dëkkul fenn waaye yow jaxate ku foqale nga képp ku sant jaxate boo dëkkul Touba rek wari nga <laughs> maa ko wax dama ne képp ku sant jaxate illaa boo dëkkul tuuba rek wari nga xam nga lu tax ndax cosaan cosaanu jaxate dafa fekk baax ca tuubaa <laughs> asalaamaaleykum. maaleykum salaam waaw. asalaamaaleykum maaleykum salaam. Oustaz Abou Bilal. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax taalibe bi alhamdulilah. ñoo ngi nuyu laxlu. laxlu di nuyu ñëpp ñu fi teewee. mu ngi lay fay. ok man Oustaz dama amoon benn question bu mu la bëggoon poser. Mhm. man dama benn lipo lèvre. lan mooy lipolèvre lu ñuy diw si tuñ ci lan ci seen génn yi waaw ah mooy yokku taar yi waaw léegi lipo bi hmm. man daal saa yu mooy génn rek dama koy def waaw lu dama koy def te lipo bi dafa saf suukar saf chocolat hmm. waaw lippo bi anamu lipo bi mu ngi nii génnal ma xool na gaaw tuuti génn na gaaw na bar نبربر نجا في شخاطر اللي بلا ناطر نجا نكفى على حنا كتر زلم شبنا كده شو ده رمضان جلك على فاعل اه استاذ لي بابا عندي دي والمخل هيك دي وكل شيء نجاو نجاو نجاو نجاو هيك ننين نبت ننين ننين ننين ننين ما لستيكل لو مصاف chocolat la saf. chocolat la suba nga jënd ñetti mètre ganila ut teer bu la ñëwal te na wari nga dégg jërëjëf bu fekkee ne am na ku ne ci ligne bi wari na. yow nga noo sant nga ne soxna si noo sant Samb nga sant képp ku sant Samb. tudd Aïcha wara nga am dëkkandoo bu sant Samb wara sa papa tudd Samb wara sa maam tudd Samb sant Samb wara nga xam ku sant Samb na ko moytu te xam na Sambeen yëpp wari nañu maa ko wax. je xale tout le waxtaanu koor. waxtaanu koor lu xew da ngeen di nelaw lu xew macha allah macha allah macha allah macha allah ah su ko defee bu fekkee nag ligne bi jàppandiwul ñu delluwaat ci lax luux mu expliqué leen nag diggante bi nga xamee nag maa ngi def examen de passage bi mooy maanaam tey laa war a tari ñeenti kaamin jàng ko tari ko firi ko ci juróom-ñaari làkk su ma ci jugee nag damay nekk loo xam ne médecin arabe am na ndax ndax boo xoolee alxuraan. am na architecte ci alxuraan lu leer laa leen wax am na médecin am na vétérinaire am na ingénieur am na ku nekk kon lu ñu soxla rek ci liggéey dañ koy fekk ci suñu borom tënk na ko ba pare dinaa leen wan nag nan la ñuy dafay miracle ku sa bopp metti nuñ koy fajee ku sa ku sa tànk di metti nuñ koy fajee ku damm ñu koy delloowee yooyu yëpp mu ngi ci xam-xam ndax dafa yaatu dañu koy jàng